salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice su réew mi fm dal leen ak jàmm seen émission sans filtre jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi fm lay amee mercredi bu jot 15 jàpp 16 heures comme ni ñu koy defee saa su nekk tey on a comme invité Adama Mang président de l'action pour les droits humains et l'amitié euh, nekk itam conseiller municipal moom lañ fi dalal pour waxtaanee phénomène immigration irrégulière bi nga xam ne dellu si war na chaque année mu mel ni période bi lañ ko wone meeku nu ñuy def ba mu jug fii loolu moo ñu fi tax a toog mbokk auditeurs yi laata ñuy dalal suñu invité Mor Fall ma bàyyi la nga nuyu mbokk auditeurs yi. Sylvie maa ngi leen nuyu di nuyu suñu invité du jour di nuyu mboolem ñi nga xamante ñoo ñi teewlu saa su nekk seen émission nga xamante ni moom mooy am saa su nekk euh, heure bi donc ñu waxtaan lépp lu ñeel wàllu ndaw ñi ak euh, biir réew mi. Mm-hmm. comme euh, ni ñu koy defee saa su nekk rubrique actualité permettre invité bi mu prononcé wu euh, lu gën a fës Mor. waaw voilà tey nag li nga xam ne am nañ ko ci rubrique actualité dañ koy def ci benn information boo xamante ne moo gën tey suba muy benn attaque bu ñu wax dafa am ci BRT bi muy bus rapide de transit bi donc. ci BRT bi waaw loolu loolu ñu wax donc ci côté fi ñuy wax naat wax naa Nimzaat ci Guédiawaye. dañoo dafa am benn attaque bu fa amoon ay gangster yoo xamante ni ñoo nekkoon ci benn oto ñoom ñoo daal di euh, song côté yooyu nga xamante ni euh, daanaka euh, fa la boo daw parce que je pense que côté terre bi dafa am photo boo xamante ni fa la BRT moom war a àggale ñeen nit ñi ci yenn ñu wax ni nag ñu jot leen nangu seen ay bagages yi nga xamante ni yoroon na ko ak yu ni mel parce que ñi ko ñoo def sax dañoo nëbboon seen i kanam ak yu ni mel bëggoon na sàcc xaalis foofu ci nga xamante ni moom mooy trésorerie bi mm-hmm. xamante ni daanaka euh, ñu ngi ko joxe nee mbir mi ñu ngeen interpellé ci côté trois heures du matin te fa nga xamante moom mooy Wakhinane ci ay malfaiteurs yoo xamante seen oto lañ nekkoon euh, bëggoon euh, def foofu ay ñaawteef donc mu nekk yoo xamante ni fi nekk nii moom mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nga xamante ni tey suba génn na donc mu nekk loo xamante dina xaw a tiital nit ñi tuuti ñi nga xamante ni ñoom ñooy fal di yeewu fajar ki mm-hmm. di jéem a jël ñi nga xamante ni ñoo dëkkee euh, côté Thiaroye côté Guédiawaye bi nga xamante ni ñu euh, a jël euh, BRT bi mm-hmm. Mm-hmm. donc mi ngi daw bi ku ci nekk ak na nga xamante ne na ko xaate parce que ñu bañoo jàpp ne bu julli di waaye ñëw lu mel tabaski wala ko ci ñaawteef a dañ koy utiliser lu bëri lu mel ne yi wala gaar yi la gën di ciblé ngir mën di def seen ñaawteef yooyu donc mu nekk mhm. loo xamante ni ñu war a gën a renforcer euh, li xamante ni moom mooy euh, merci Mor ci euh, rubrique actualité bi am solo mhm. Adama Manga Euh, y président de l'action pour les droits humains et et l'amitié e, ñu am mbégte kontaan te dalal la suñu plateau ñu bàyyi la nga nuyu mbokk auditeurs yi lay déglu. waaw di la nuyu si dalal bi. soxna si Sylvie di nuyu tamit Mor. Mhm. di nuyu euh, ñëpp ñu nga xamante ne ñoo ñuy déglu ci seen euh, rajo. Mhm. wala seen smartphone. Mhm. Euh, benn commentaire rek ci rubrique actualité bi nga xam ne Mor Fall indi na ko. waaw di di ñaawlu rek di nakarlu comme nuñ ko faral di defee xam nga lépp lu nga xamante ne moom mooy recrudescence de cette violence là boñ ci wax nekkul léegi. en 2019 boo ñu doon wax si euh, lors de la journée internationale de la jeunesse on mm-hmm. parlait des menaces qui pèsent sur la jeunesse mm-hmm. entre autres violence moo ñu si chômage endémique moo ñu si lii di santé beeg yooyu mais mm-hmm. pour ñëw si lu ma laaj léegi nii lu xew wàkki naan Nimzat yàggul rek tout le temps lu ñu doon gis mooy ay vidéo yu nga xamante ni ay guddi lay jot euh, zone boobu noonu nga gis ay personnes yu nga xamante dañuy masquer seen kanam euh, daw ak seen L200 dem ba benn magasin wala kër jàmbur dajji ko donc loolu noonu dañ koy déplorer d'autant plus que gis nañ ni que événement bu jotee wala marche bu jotee. Mhm. Euh, buñ ko interdire euh, dispositif bu ñuy génne nga xamante ni muy état bi lu muy génne. Mhm. pour jéem a réprimer loolu buñ ko doon def wala yokk. Euh, ñu nga xamante ne ñoom ñoo war a yor suñu kaaraange. Mm-hmm. di circuler ci zone yi nga xamante ne mooy fii ñu nekk ak feneen ak feneen muy Sénégal bi yëpp laay wax sax. Mm-hmm. buñ ko doon def dina tax euh, mu mën a dissuader ces ces jeunes là wala ces gens di jéem a agresser d'honnêtes citoyens. super. Euh, Adama Mbengue merci beaucoup mm-hmm. euh, yaa di président action pour les droits humains et l'amitié du ONG ADHA Euh, ñëpp ñu koy dégg euh, ñu bugg rek nga ñëwaat tuuti si ONG boobu noonu euh, lan mooy ONG ADHA lan moo ko tax a jug nga expliquer un peu auditeurs yi. waaw si tënk rek adaa Action pour les droits humains et l'amitié dafa nekk benn kuréel bu nga xamante ne ñooñ ko créé en 2006 contexte bi nag 2005 dafa amoon benn daje bu amoon feneen di Algérie deg daje boobu noonu booñ ko defee ba pare maanaam ndaw yi ñoom ñoo fa gën a des. pour waxtaan si na la ñuy def pour défendre les droits des jeunes avant organisation des droits humains amoon na woon yàggoon na am mhm. mais mu am de manière spécifique ay organisation wala ay kuréel yu nga xamante dañuy aar ak ak yelleefu ndaw yi amul woon mhm. donc ba pare préoccupation yi nga xamante dañ ko doon def pour euh, ay thématiques yu laal ndaw yi kon ba léegi nii rek boo xoolee euh, lu nga xamante ni mooy euh, kuréel yuy daje tout le temps di wax ci affaire Afrique jël thématique boo xam dafay laal jeunesse loolu nag moom moo tax ndaw yooyu noonu en 2005 ils se sont dit bu ñu delluwaatee suñu dëkk nan la def pour créer kuréel yooyu noonu. Mhm. si loolu nag si la am ay ndaw yoo xamante nekkul woon ñun ñun ñooy troisième bureau bi. Mhm. muy suñu premier bureau ñoom ñu ñoo daje. ñoo xamante ne ay sénégalais ak ñoo xam nekku ñoon ay sénégalais mhm. ñenn ñi dañ fi ñëwoon pour def stage ñu jógee Paris 11 ñeneen ñi Paris 7 ñeneen ñi université Michigan Euh, lii nga xamante ne moom mooy tax ñu créer ADHA. Mm. donc boo ñu ko déposé en deux mille 2007 dañuy door a am euh, reconnaissance fii nii pour mën a ñëw aar ak ak yelleefu doomu aadama maintenant booy wax défendre les droits humains de manière général ndaw yi de manière spécifique mais si ndaw yooyu noonu mënoo wax lépp léegi premier bureau bi ñu fi njëkkoon nekk ils étaient plus euh, comme lu ma doon wax ay étudiants la ñu woon mm-hmm. léegi ñoom seen. Euh, étudiants yi nekkoon extérieur. effectivement ak ñu nekkoon fii tamit. Mhm. donc ñoom lu ñu doon euh, gën a seen xel su lu mu gënoon màcc book bu nekkee noonu lañ koy waxee si olof euh, moom mooy xool lii di les questions de mobilité booy wax question de mobilité c'est c'est global dafa dafa yaatu. moo ñu laal lii di migration muy flux migratoire mixte mooy les demandeurs d'asile les réfugiés les apatrides. Euh, laalaale tamit la migration les questions de maanaam la migration euh, clandestine même mm-hmm. si j'aime pas utiliser ce terme là mm-hmm. donc ñoom loolu la ñuy gën a woon surtout les questions de liées aux réfugiés et, et aux demandeurs mm-hmm. d'asile mm -hmm. boo ñu demee nag ba si biir si la ñu xoolee ni que ah question yooyu noonu tamit am na yenn facteurs yi nga xamante moo ko laal muy question violence bi muy question pour ñëwaat si suñu communiqué bu ñu defoon euh, journée rapport bu ñu defoon en deux mille dix huit mhm. muy laal si euh, lépp loo xamante ni ndaw yi muy chômage endémique bi et cetera et cetera donc lool daal si tënk ah, daal loolu daal lay lay xeex maanaam mhm. on est là pour défendre les droits humains de manière générale mais de mhm. manière spécifique ñuy wax ci côté violence wax ci côté migration et cetera même si mm-hmm. tey dañu gën a jox casquette ci affaire migration mais c'est pas seulement la migration mm-hmm. ah mais ku leen xam ci immigration la leen gën a xamee tout à fait tout à mm-hmm. fait parce que ci ngeen di gën a yëngu waaw bon euh, xam nga migration comme li ñuy wax rek dafa am ay facteurs yu ko lié te facteur yooyu noonu lu koy andi pour nga combattre ko comme li ñuy wax rek boo dem boo gisee benn garab nga bugg ko dindi da ngay dem ci racine racine moom mooy lan mooy da ngay gis ay ndaw yoo xamante ni chômage endémique bu leen laal. Mhm. muy extrême pauvreté bi. yooyu noonu boo koy lutter nag. Mhm. boo ko lutter rek dangay ñëw jéem a tax ba ndaw yi dañu migrer de manière irrégulière. violence bi tamit et cetera et cetera donc yooyu noonu yëpp c'est des facteurs qui sont liés. Mhm. donc migration moom mooy peut-être feuille bi wala moom mooy iceberg bi lu nekk ci kaw mais si suuf moom mooy lu nga xamante ni moo laal ci jeunes yi. mooy laal les conditions de vie. d'épanouissement euh, des jeunes. d'accord voilà. Euh, tey boo doon diagnostiquer phénomène immigration bi fii ci Sénégal euh, naka nga koy diagnostiquer ndax gis nañu jamono ji mu mel ni période bii rek lañuy dégg immigration période bi la ñuy jël gaal yi pour dem extérieur moo xam ak foo mënti dem gis nañ drame bi amoon Kafountine jamono ji ak drame bi am Meya. waaw da nga ñuy permettre tamit ñu. présenter nos sincères condoléances si ñu nga xamante ñoom ñoo ñàkk seen bakkan euh, lu weesu loolu euh, booy pour ñëw si diagnostic bi ngay wax noonu la migration musul arrêté. Mhm. musul arrêté arrêté. mais day am période boo xam ne si lay gën a bëri. waaw xam nga mhm. euh, ñu bëri dañu jàpp rek ni mooy gaal yi. Mhm. nekkul parce que gaal yi dem ba yegg ñooñu. xam nga kenn du leen yëg. xam du gaal yi rek maritime la. Guterres la ak aérien mhm. yàggul woon boo ñu dawoon wax ci scandale bu nga xamante ne ay député mhm. demoon bay jaay ay visa mhm. donc loolu noonu par aérien daf ci bëri xam nga les passeurs ils sont là ils s'adaptent dañuy wu rek bu ñu gisee ni que yoon bii moom moo gën a favorable ñu jéem a ñëw adapté dem ci yoon boobu na bu ñu gisee ni bee moo gën a favorable ñu dem ci bee maintenant par rapport à cette migration là donc les jaruma si ñëwaat parce que ñëpp xam nañ ko xam nañ dund bi fu mu toll nii. Mm-hmm. rawatina heure bii nii. Mm-hmm. bu may joxe exemple rek demal actuellement nii mairie yu bëri ñoo joxe ay ay aide mais da ngay gis ni dëkk bi yëpp ñëppay dem pour uti aide. Mm-hmm. kon nga xamante ni dëkk bi dafa metti metti tellement. boo demee si bërëbu liggéeykaat yi boo xoolee nit ñi seen kanam rek ils sont crispés dañu ñëw andi benn kanam boo xamante ni loolu wane lu mu lay wone wala lu muy tekki moom mooy ces personnes là est-ce que seen droit respecté nañ ko est-ce que am nañ épanouissement bu ñu am seen liggéey. Mm-hmm. pour ñëwaat si yeneen yoo xamante ni c'est de rapport qui sont sortis euh, notre agence nationale de statistique et de démographie lan la ñuy wax chaque année il y a près près de trois cent mille jeunes qui frappent à la porte de l'emploi il y a mm-hmm. que trente mille qui sont pris. Mm-hmm. ñeneen ñi nga xamante ni amuñu emploi lan la ñuy def. dañu mujj croiser les bras toog ci ban euh, boo weesoo loolu nga ñëw gis secteur yëpp ah muy euh, dund bi actuellement nu mu chéré nu mu yokkee mhm. donc nga passé si loolu nga ñëw xool les pêcheurs chaque jour ñu ne la ñoo ñu dem bàyyi suñu code yi mhm. di dem yeneen dëkk ñu leen fay ñu leen fay ñu leen fay téye mhm. ndax lan téye leen fa parce que fii nii mënuñu fi napp suñu géej dañ ko dañ ko jaay terrain bi tamit mooy euh, ñu nga xamante ne mooy baykat yi pour mhm. jéem a bay ak yooyu noonu on vous dit on nous dit tout le temps on nous sert tout le temps non les jeunes il faut ngeen dem vers l' agriculture cetera mhm. alors que euh, kaawu leer bi moo ñu fi mhm. ak yeneen ak yeneen c'est-à-dire c' est un groupe qui est là privilégié ñoom la ñuy jox lépp ñeneen ñi nag ils sont là du def dara mais ces jeunes la boo leen teree sax ne leen bu leen migrer de manière irrégulière nan la ñu mën a euh, nan la ñu mën euh, nan la ñuy def cest à du ñu mën a nañoo rek toog ne du dem. Mm-hmm. il faut nga proposer leen des solution concrètes. beneen bu ma fàtte woon wax mooy voie légale. Mm-hmm. les gens dañuy jéem a se ces voies. Mm-hmm. mais bu ñu demee si ambassade chaque fois da ngay ñëw. pour obtenir mel ni kuy def benn examen bu extraordinaire. da ngay ñëw bàyyi sa xaalis déposer lépp lu nga xamante ne war na pour nga mën a voyager mais. pour nga am sésame boobu noonu sax muy cachet bu ngay xamante daf lay permettre pour nga mën a voyager doo ko am. Mm-hmm. loolu nag contrebande yi nan nañ siy comprendre te xaalis boobu noonu duñ la ko retourner. les contrebandes lan la ñuy mujjee de euh, mujjee def dañ lay ñëw jege ne la ah jéem nga tenté dem demoo mais ñëwal ma jaay la visa ma jaay la ko à un million deux millions trois million mm-hmm. bu nekkee nag passeport diplomatique à temps. Mm-hmm. ñaata yoon lañ fi gis spectacle am ñenn ñi ñëw ànd de personne pour dem. Mhm. des fa jaare noonu. Mhm. football am gars yi ñu bëri jaaree noonu ainsi de suite yaa na exemple bi ñu koy joxee xam naa ni fii mhm. la ñuy fanaan. dans ce cas est-ce que euh, consul yi waruñu yombal nit yi visa yi parce que tey koo jox visa bu demee dina liggéey te dina am euh, xelu retourner. Euh, ki nga xam ne il est parti de manière irrégulière bu demee laata muy am papier du mën a retourner. waa xam nga amoon na benn période je sais pas si vous vous rappelez ou pas. Mhm. Euh, je pense c'était Idrissa Seck qui était premier ministre wala moo ñëwoon si gouvernement bi. Mhm. boo ñu doon def ba mu amoon benn réponse bu forte bu nga xamante ni daf ko defoon ba imposé ñee pour ñu ñëw fii nii moom mooy tubaab yi nga xamante ni dañ fii ñëw ñun dañ leen laaj benn visa bu ñu mm. demee yàq suñu côté mooy euh, au niveau de Mbour ay pas tubaab yi fa nekk mm. mais daf leen ñëw exiger leen pour ñoom tamit pour ñu am benn visa d'entrée pour ñu ñëw fii nii donc il faut que ñun suñu autorités yi ñu am benn sa à dire ñu jël seen responsabilité ñu ñëw am benn sentiment de je sais na laa ko mën expliquer ci olof c'est-à-dire ba nga xamante ni ñu nekk feene mun ñu respecter d'abord ñooñu la imposer visa pour nga dem feene mais pour ñu ñëw fii ni nañu xool nan la ñu mën a def ba nga xamante ni ah bu fekkee ni leur quota parce que ont des quotas quota boobu na la ñuy def ba yokk ko wala sinon bu ñu ko mën a yokk tamit ñun tamit ñu ñëw am dan lu nga xamante ni moom la ñuy defee hmm. ba nga xamante ñoom pour ñu ñoom ce réciproque beneen bi mooy lan mais Afrique continent la bu nga xamante ni riche est-ce qu'on a besoin les jeunes bu fekkoon ni ils avaient les condition qu'il faut ñu des fi mais du ñu jéem a naan dañuy jël euh, voie illégale wala dañuy même bu ñuy dem sax du bëri boo jëlee yenn dëkk yi ay Gabon wala yenn dëkk yoo xamante ni est-ce que foofu di ñu fa dégg des migrants wala la migration irrégulière même ñoom bu ñu génnee seen dëkk. pour mm. ñëw fii ne de manière régulière dañu ñëw jàngi bu ñu jàngee ba pare ñu si bëri dañuy. delluwaat pourquoi parce que ils savent que s'ils ont les opportunités bu ñu delluwaatee seen dëkk am nañ opportunité pour travailler mm-hmm. facilement les jeunes demandé wuñu dara fu ñu liggéeyee rek la ñu la ñuy laaj muy emploi bu des donc donc mu déggee ba kon au niveau du Sénégal kon seen politique de de. de jeunesse bi de l'employabilité des jeunes moom moo am problème. seen politique de manière générale de jeunesse moom moo doxul. Mm-hmm. gis nga tey euh, boo demee jël benn malade man man ma nekk malade nga war ma consulter consulter woo ma nga dem woo sama papa pour consulter ko est-ce que foofu noonu di nga xool les symptômes wala di nga ma mën a faj. Mm. dama faj fii nii y de réelle politique de jeunesse en réalité. Mm-hmm. mais est-ce que aussi c'est ce sont les jeunesse ñoo am problème aussi ci côté orientation wu vers l'employabilité parce que ñëpp dañu bëgg defandoo benn mbir loo xamante ni peut que il ne se euh, cherche pas des informations concernant les les retombées ak li nga xamante ni moom mooy moom mooy avenir loolu mais la plupart des jeunes boo xamante ne naan sama gaayen bee mi ngi def euh, informatique moom tamit moom da koy def sans pour autant euh, chercher à comprendre d'ici quelque temps la mooy le rôle des autorités wala de de ces structures qui sont là la mooy seen rôle. Hmm. nga sànq maa ngi doon wax ni en deux mille dix on avait fait benn rapport bu nga xamante ni qui parle si je me trompe pas c'est deux mille ou deux le mois d' août. Hmm. de la journée internationale euh, de la jeunesse on parlait des menaces qui pèsent sur la jeunesse. Hmm. donc si rapport boobu noonu boo ñu demee ba def diagnostic. Euh, on sait d' abord dañoo xool benn rapport bu nga xamante ni IFAN def na ko. fi ñu waxee ni que soixante quinze pour cent des jeunes qui sont là veulent quitter le pays dès qu'ils en ont les moyens li muy signifier mooy sur quatre jeunes les trois dañoo bëgg a génn si dëkk bi mm-hmm. dès qu'ils les moyens que ça soit régulière ou irrégulière parce qu'ils n'ont plus d'espoir pour mm-hmm. toog fi malgré que wax nañ fi zircon moo ñu fii pétrole moo ñu fi et cetera donc ñu gis ni que soixante douze pour cent de la population active ce sont les jeunes loolu noonu war a nekk benn atu te ñu si bëri si secteur informel la ñu nekk donc menaces yooyu noonu ma doon wax muy éducation bi mais on a benn système éducatif boo xamante ni ce n'est pas adéquat ni si formam ni tout le temps ay grève ak yooyu noonu. Mhm. nga ñëw si santé bi c'est la même chose nga ñëw si euh, côté employabilité bi nga wax noonu c'est la même chose te boo ma doon wax sànq si politique de jeunesse gi nga tey jii nii bu ñu tegoon benn politique de jeunesse boo xamante ni ndaw yi ñoo koy càmbar pour ndaw yi. foofu noonu dinañ mën a andi benn solution rapidement. Mhm. sur la supervision de de ces grands là. mais da ngay gis kenn koo xamante ni qui a largement dépassé qui ne connaît même pas les réalité des jeunes bugg a ñëw ni prononcé wu ne lii laay teg on nous a parlé euh, de de de ce conseil là d' abord muy conseil national de la jeunesse bu fi am ba nga xamante ni seen mandat c' est ça a pris fin depuis deux mille dix neuf loolu est ce que respect la. yow def nga sa mandat ba mu jeex en deux mille dix ñu bàyyi la fi est-ce que les préoccupations des jeunes yu fi am est-ce que gis nga leen ñu tendre seen micro ñëw di wax je pose la question et je pose la question aux, aux auditeurs qui nous écoutent ñu peesu ñu weesu loolu événement yu fi xew et tout ñu ne ñu dañuy tegaat beneen conseil boo xamante ni ces milliards yi ñuy pasa pasaree noonu mais ces milliards là pour accompagner les jeunes moo gënoon hmm. que ñu tegaat beneen conseil ban résultat la conseil boobu noonu def ñu weesu loolu nga wax ñu ñu wax ñu les direction qui la mais y a énormément de directions waxuma ne lu ñuy def baaxul de mais dafa bëri ay directions da ngay jógee direction bi ñu ne la demal bee fii nii nekkul sama domaine de compétence même si là il nous parle de guichet unique mais bu fekkoon dañoo regrouper woon tous ces euh, toutes ces directions def ko benn direction non mhm. seulement ils vont euh, lu ñuy fay mooy seen budget de fonctionnement dina wàññeeku mais seen efficacité dina dinañ ils seront Mhm. direction de l' emploi foofu lay mujje am benn politique bu ñu def muy convention état emploi <laughs> convention boo noonu demal ci centre d' appel yi ils subventionnent exemple rek laa jox ci centre d' appel y' a beaucoup d' exemples qui sont mhm. ba soixante pour cent man nan laa mën a nekkee état mu mën a subventionner des entreprises à hauteur de soixante pour cent awma benn droit de regard bu nga xamante ne dama ko war a def les jeunes là dañ fay ñëw ils sont xaw ma nan laa ko mën a exprimer c'est-à-dire on les on les exploite exploitation bu raw exploitation lañ fay def. surexploitation kay. salaire yi ñuy gagné eggul sax quatre vingt mille francs. et puis duñ non c' est grave lu ci xew si dëkk bi. Mm-hmm. te malheureusement ces jeunes la ñan ñoo war a porter seen voix ñëw dénoncer loolu. Mm-hmm. ils le font pas. donc loolu noonu yëpp nga bëgg a ñëw ne jeunes yi ndaw yi toog leen on on pousse pas les jeunes à à à mm-hmm. mais de le problème est ce est est l'

va va va prospérer ou bien si ce métier va va va euh, ndax yooyu yëpp nekkul problème ci problème jeunesse d'abord mais avant ñuy attaquer li nga xam ne état xam nga les les mais lu tax ñuy gën a pointer du doigt de si état bi ñun suñu taxe wala leneen ak leneen loolu la jël pour fay leen dañoo jël suñu xaalis yoon noonu yëpp pour ñëw fay leen ñu am benn droit de benn obligation de résultat mm-hmm. tey bu may joxe exemple muy Rwanda ma jox exemple Allemagne seen système nan la demee Allemagne dangay ngay ñëw egg exemple nga dem ba troisième secondaire pratique ngay gën a def que théorie c'est-à-dire da ngay ñëw jàng lii di pratique. Hmm. kon tey yow mi mécanicien nga da ngay ñëw matin bi nga dem defi dem benn entreprise commencer xam les réalités pratiques. Hmm. soir bi nga ñëw def sa kii wala matin bi nga ñëw jàngi si soir bi nga dem liggéey. Hmm. boo demee ba sa bac bac technique ngay def boo amee sa bag rek ñu si bëri dañuy ñëw entreprendre commencé nañ sax commencé am seen liggéey c'est-à-dire son sont opérationnels par contre boo ñëwee fii ne lan la ñuy def yaa a ces de formation professionnelle mais dem fa avant ma ñëw sax ci centre de formation professionnelle demal lycée euh, technique yi ñuy wax noonu c'est une technique que de Mm, que de <laughs> boo fa demee xam nga demaguma sax niveau supérieur mm-hmm. mais feneen c'est une technique que loolu moo tax ma ne suñu niveau suñu éducation ce n'est même pas adéquat mm-hmm. adéquat wul mm-hmm. donc yooyu noonu la ñu war a njëkk càmbar moo tax sànq ba léegi ma doon insister si racines yi racines yi nga mun a ñëw andi bu nga boo gisee benn plaie nga bañ a reconnaître lii plaie la góom la doo ko mun a faj malheureusement on a des des autorités qui la là qui voient plaie moo ñi nii duñ ko jéem faj maintenant jeunes yi yàlla nit ki xam nga bant bu tooyee yaa koy mën a jubanti mais doo ñëw bant baa ñu ni tooy nga bàyyi ko mu dëng muy continuer continuer ba fin bi maintenant tu te poses la question est-ce que ñi ils ont benn réelle volonté de de trouver des solution ou bien de ñu faj loolu. Mhm. Adama tey est-ce que jotul kon euh, état bi xoolaat façon bi muy defee politique bi surtout ci immigration. ak milliards yu ci dugal yëpp pour décourager ndaw ñi ak pour créer emploi programme xëyu ndaw ñi jokkoo ak mag xam jafe yi nga xam ne jeunesse bi ñoom moom la ñuy jànkonteel est-ce que jotul tam mu soppali mu changer euh, doxalin. xam nga yàgg nañ di wax ni que d'abord il faut ñu def l'état des lieux état des lieux moom mooy lan càmbar de 2005 à nos jours les milliards yu nga xamante dañ ko dugal si la migration donc qui parle de migration parle de question de développement ca à dire lépp lu laal si développement. Mm-hmm. yooyu ñu càmbar ko ñu xool toutes ces directions là qui ont eu à recevoir benn centime bu fonds wu Union européenne. Mm-hmm. muy euh, euh, comment ça s'appelle encore les fonds fiduciaires muy lu weesu direction yooyu noonu. ñu xool les organisations que sa soit nationales comme internationales qui ont eu à recevoir ces centimes la mm-hmm. xool fan lañ ko dugalee loolu nag nekkul nii dañuy ñëw euh, ñaawal cere bi. wala këpp si suuf déedéet dafay tax tey ñu mun a xam lu nga xamante ne dox na. Mm-hmm. ñu jéem ko continuer lu nga xamante ni dafa bon ñu ñëw dindi ko. Mm-hmm. mais malheureusement on le fait pas loolu di am. bu ñu defee état des lieux boobu noonu moom moo ñuy permettre plus tard ñu ñëw jéem a changer comme nu ma ko waxoon sànq noonu ñu ñëw def benn politique de jeunesse bu nga xamante ne moom mooy tax tey jii ni ñu mën a génn si lii nii si on le fait pas y aura jamais de solution. les solutions yàgg nañ si wax ay séminaires ak yooyu noonu yëpp mais malheureusement on les met dans les tiroirs donc loolu noonu dafa jafe léegi càmbar tamit euh, politique de de jeunesse bi ce serait une bonne chose exemple bu may joxe boo demee si instant de décision est-ce que vous verrez là-bas des des jeunes. un jeune c' est quelqu'un qui est âgé de a à trente cinq ans mun nga mm-hmm. dépasser sax âge jeunesse boobu noonu mm-hmm. mais nga mun a ñëw nekkal fi pour ndaw yi mm-hmm. mais demal si assemblée nationale est ce que am na benn jeune bu fa nekk à part kenn ku nga xamante ni dafa ñëw remplacer keneen ku nekk ministre si la mun a duggee biir assemblée mais amul sax benn jeune bu fa am du garaaw am quarante ñu ne la xale nga <laughs> même bu fekkee ni sax yow egg nga yenn âge yi mais nga nekkal fi ndaw yi. Mhm. mais malheureusement tel n'est pas le mhm. donc respecté boobu noonu nga war respecté jeunes yi bu nekkee mhm. respecté woo leen joxoo leen cër mais mënoo andi benn saafara ci seen kaw. à fait parce que mënoo ñëw andi chaque fois tu changes de concept jokkoo ak diw jokkoo ak diw jokkoo ak diw. mais jokkoo bi après lan c'est comme ñu ne ñu conseil conseil les jeunes n'ont plus besoin de conseil li ñu soxla moom mooy action. tollatuñu ci xam nga depuis indépendance ba léegi nii on ne fait que théoriser. Mm-hmm. Sénégal da ngay gis yeneen dëkk yu nga xamante dañuy ñëw ba fii jël suñu rapport yi. Mm-hmm. boo laajee muy domaine yëpp ah sa ça soit l' administration société civile chaque fois dañuy ñëw fii nii jël ko delluwaat seen dëkk ñëw dérouler ko indi ay am ay résultats. Mm-hmm. fii lu ñu bindul booy booy jéem a sax da ngay répéter loo xamante ni wax nañ ko il y a de cela des années. est-ce que aussi la euh, euh, jeunesse Sénégal bi dañoo xam nga xam nga tey. bu fekkee quoi bu fekkee waaw mais théorique boobu noonu si suñu mag yi lañ ko lañ ko jëlee. depuis indépendance ba léegi théorie rek moo fi am moo tax ñun ñuy ñu nga xamante ni ñoom ñoo war a nekk suñu modèle mm-hmm. malheureusement ils noo fait que par contre il y a des personnes qui sont là qui sont des modèles mais mm-hmm. malheureusement on, on les écoute pas la rupture mm-hmm. waaw moom moo tax ma ne il faut il mu am il faut mu am loolu. Mm-hmm. il faut que mu am. Mm-hmm. rupture bi moom mooy il faut réellement ñu changer sa à dire ñoom les autorités savent xam nga am na loo xamante ni du yam rek ñoom ñooy ñoom ñooy teg des actions c'est pas si vous me comprenez. Mm-hmm. c'est-à-dire la société civile lu muy def moom mooy droit de veille et d'alerte ils sont là juste uniquement à alerter. parfois de faire des séminaires des des des des campagnes de sensibilisation et autres mais tey ñun lan la ñu mën a def si pour changer teg fii benn politique de jeunesse on peut pas le faire on peut juste donner les orientations mais mm. kan moo koy matérialiser c' est l' état c' ñu nekk si instance de décision ñoom ñoo ko mën a matérialiser mm-hmm. donc ñooñu bu nekkee amuñu volonté pour def ko ce qu'il faut faire c' juste de conscientiser la la jeunesse la jeunesse jël responsabilité mm-hmm. bu ñu jëlee seen responsabilité lu ñu war a def ñu def ko. mais seen rupture doit être forcée wala wala boo dafa nekk loo xamante ni ko war a dafa war a nekk lu ñu euh, anticiper parce que à chaque fois Sénégal wala ba Afrique li koy li koy tàggat moom mooy euh, le côté de li ñu wax naan foog ngi def état par état parce que y a les réalités alors que. Mm-hmm. dafa dem dem foo toll foo xamante ni on doit forcer les choses jeunes ñoom ñoo war a. Euh, ne ah mag mag mag comme ni nga ko waxee dëgg la mag koo xam jot jot naa mag na côté boo xamante on doit aussi forcer a imposer parce que am na projet yoo xamante ni dañ ko bëgg a mettre en en place ñu ne la non que il faut ñu bàyyi xel. Euh, mag ñeeg que euh, on doit passer boo xamante ni gaa mag ni ñu koy waxee baax na ci baax na ci réew mais aussi les jeunes aussi doit doit euh, xam nga nekkul rek des jeunes na na doon jeunes yoo xamante ni seen loxo dafa set. Mm. bu nekkee da nga jël benn jeune boo xamante ne moo gën a yées mag bi nga ñëw boole ko ak mag yi. Mm-hmm. li muy def y même pas de résultat sa à dire mm-hmm. il faut ñu dindi cette euh, euh, ñuy jiital suñu intérêt crypto personnel man rek laay xool jeex na jeunes yu bëri boo leen laajee wala bu ñu génnee. à à l'école wala ñu am seen bac wala ñu pare seen étude universitaire lan mooy nekk seen bopp c'est-à-dire ils pensent que nous sommes des cadavres ambulants yu nga xam dañuy dox Pourquoi Parce que les autorités qui devaient être là pour nous accompagner, ils le font pas. beneen bi mooy lan mooy euh, jeunes yooyu noonu boo leen laajee dañ la naan pour réussir lii rek moom mooy ñett yi ngay am soit da ngay am ay parents yu nga xamante ni ci sont là qui yu lay accompagner nga jéem a entreprendre. Mm-hmm. wala soit nga def yenn concours yi concours yoo xamante c'est très sélectif. Mm-hmm. pour nga bokk si. wala sinon boo deful lool da ngay jéem a def politique pour t'en sortir. Mhm. wala soit beneen bi mooy nga valser dépassé na trois bi sax mooy nga valser entre banditisme wala drogue yi wala nga nekk di di agressé donc yooyu noonu yëpp boo nekkee gor bu nekkee amoo solution yooyu nga jéem a migrer. Mhm. yéen Ada yéen lu seen politique euh, ci migration noo leen di jàppale ndaw ñi. bon euh, lu ñu jotoon def d' abord euh, boo ñu ñëwee d' abord étant. des jeunes ñu vivre les mêmes réalités defoon benn état des lieux lu ñu def moom mooy euh, tout le temps de ñuy génne suñu ay ay communiqué pour sensibiliser hormis ça si dañ commencé tamit di dem dans des lieux publics ak lieux privés pour rencontrer les jeunes parce que comme lu ma waxoon sànq réalité bu nga xamante ne ndaw yu dëkk biir Dakar nekkul les mêmes difficultés la ñu dëkk Kër Cheikh bu nga xamante ne mooy nekk Diourbel. Mhm. wala ñu nga xamante ne ñooy nekk ba Sédhiou. Mhm. donc rencontrer on a fait pas mal de départements pour rencontrer ces jeunes la andi benn kaye boo xamante ni dañoo waxoon ni foofu la ñu tënkee ñoom ñëpp seen problème problème yëpp yu ñu am. ñu ñëw jéem a xool de pistes de solution lorsqu'on l'a fait on s'est rendu compte que rien qu'à Dakar on s'est rendu compte que on nous posait nga xamante ni dafa doon des donc mujj ñu ne on va offrir benn cadre cadre boo xamante ni lii peut-être direction yi wala ministère yi ñoo ko doon def mais defuñu ko mais ñun nañ def suñu rôle. Mhm. dañu offrir benn cadre boo xamante ni les jeunes dañu leen doon woowaale woowaale invité waale ces direction là ñëw ñu toog ñoom ñu poser leen directement des euh, des questions. Mhm. bëgg nañ def lii bugg nañ entreprendre déposer woon nañ DER déposer woon nañ fee. Mhm. et cetera on n'a pas eu de solution. donc sensibilisation foofu lañ njëkkee ba pare c'était en trois phases sensibilisation boo ñu ko defee ba pare deuxième étape bi mooy renforcer leur capacité par rapport ak comme lu nga doon wax sànq boo waxee benn jeune ne ko dama lay accompagner rek te formé woo ko dafay des troisième phase bi nag moom mooy l'accompagnement l'accompagnement nag bon ñenn ñi moom mooy yenn direction yi. Mm. ñu waxee ni que ah, il faut remplir ces conditions on a vu que les jeunes ont rempli ces conditions là dem leen déposer nous on va suivre. Mm. xool ndax réellement ñoom lu ñu woote ndax mooñ si ou pas yeneen yi moom mooy on a des partenaires parce que amuñu doole boobu noonu. Mm-hmm. des partenaires yu nga xamante ni. lu ñuy def mooy euh, je peux citer l'ONG euh, lu ñuy jël mooy dañuy jël ay jeunes filles yoo xamante ne qui ont très tôt le les les les bancs. Hmm. Hmm. léegi ñoom boo ñu ñëwee hmm. dañuy jël ces fii la ñëw forme leen ay couture euh, transformer jus et cetera. donc yooyu boo demee ba pare seen seen formation yi noonu y a d'autres partenaires qui accompagnent jox la les fonds qu'il faut c'est-à-dire il les regroupe en GIE. GIE boobu noonu ñuy dekk nag. mooy permettre bu ñu leen joxee les fonds qu'il faut mettre leen en link c'est-à-dire Mm-hmm. maintenant en rapport avec d'autres yoo xamante ne ñoom ñooy doon des des potentiels euh, mm-hmm. euh, clients mm-hmm. ñu ñëw jënd xam nga loolu rek andi nga ay solutions yu concrètes bien sûr bien sûr te ñëpp euh, donc lu weesu loolu lu ñuy def tamit moom mooy assistance comme nu ma ko waxee lii di flux migratoire mixte la flux migratoire mixte dafa yaatu dañu laal si les demandeurs d'asile yu fi nekk je rappelle que y plus de quatorze mille réfugiés qui sont là et mm -hmm. près de 3000 demandeurs d'asile mm -hmm. les peut-être am na benn jéego bu ñu def bu nga xamante ni ils sont reconnus par notre conseil national d'éligibilité HCR mhm. ñëw appuyer leen voilà à travers leur euh, partenaire technique muy BEOS mais les demandeurs d'asile yi nga xamante ne ay daw làkku lañ dañ leen persécuté nekk fii ñoo ñu ñu si bëri amuñu woon euh, du ñu am assistance mhm. ñenn ñi dañ fiy toog pendant plus de trois ans toog t du ñu am papier c'est-à-dire mhm. amuñu papier dañoo daw laak dañ leen persécuté mhm. donc foofu noonu l' assistance juridique dañ koy def ak ñoom mhm. Mhm. accompagner leen ba ñu mën a am seen papier yi nga xamante ne moom mooy les réfugiés ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne pour les apatrides et cetera qu'on fait beneen moom mooy pour trouver des solution par rapport à l' lu ñuy def moom mooy on est parti dans pas mal de d' instituts de formation def des journées de réflexion yi nga xamante ne on invite à la fois les étudiants ñu nekk euh, jóge fépp ñëw fa invité tamit euh, les cadres d'entreprise mhm. invité tamit les universitaires pour ñu wax si adéquation entre lu ñuy jàng ak l'employabilité de ces jeunes la mhm. te foofu noonu c'est pour pousser à ces cadres la à ces kii euh, de d'entreprise là ñoom ñu ñëw club des investisseurs ñëwoon nañ fi woon et cetera ñooñu pour ñu ñëw impliqué wu ci formation wu jeunes yi cest dire même lu ñu war a jàng ñu xool ndax c'est adéquat ou pas nan lañ ko war a formater nan mm. lañ ko war a defee ba nga xamante ni mm. les jeunes bu génnee rek il sera dañ koy ñëw rek mu mun a insérer donc mm-hmm. yooyu def benn nga xamante ni on fait des rapports et on leur distribue ça. mais ces rapports yooyu est-ce que est-ce que a ngi def euh, peut am us benn benn euh, ñu ko waxee euh, propulsion loolu laa mën a expliquer wala moom mu am benn avance ci li nga xamante ni moom moo koy xaar ci kanam parce que la plupart des jeunes yi nga xamante ni dañuy gis ne rek waaw Mor Fall gi def na formation journaliste mi ngi def fële moom aussi ku ku doxee bëgg a def sans pour autant mu poser la question si euh, d'ici cinq ans sa sa sa métier wala boog euh, secteur bi dina continuer di recruter wala boog recrutement bi day baissé wala du genre est-ce que genre euh, forum yooyu dañ ko faral def ak jeunes yi ki pour la pour la plupart jeunes yi nga xamante ni ñu ngi ñëw seen mbir ñu mën a xam au moins ñoom ci ban ci ban filière wala boog ban secteur la ñu war a mën a lancer wu d'ici seen seen seen fin de formation pour au moins ñu mën a opérationnel parce que la plupart problème boobu la ñu am. c'est vrai que 2020 la ñu mujjoon ak Covid moo tax ñu arrêté ko woon ko yaayam lañ mujjee woon. Hmm. boo ñu defee woon benn euh, journée bu nga xamante ni dañoo invité euh, tous les jeunes. Hmm. ñu ñëwoon foon y avait les Nations Unies qui étaient là y avait le patronat qui était là. y avait aussi euh, ces entrepreneurs mooy club des investisseurs bu fa nekkoon tamit hmm. Abdourahmane Diouf nga xamante ne après le démissionné moom ñëwoon noonu Casamance ñëwoon et cetera et cetera donc y avait les doyens Mamles Camara donc sensibilisation boobu noonu demoon nañ koon def. c'est mhm. vrai que après période Covid bi on a euh, def benn stand si côté boobu noonu. Mhm. mais on a l'habitude de discuter avec des jeunes. Mhm. d'interagir avec des jeunes. récemment nii nekkul travail boo xamante ni dañ ko kii mais on a pu faire yenn lycée de Dakar la région de Dakar pour sensibiliser par rapport ak bac bi. nga xamante ni après. filière yu nga war a def ak yooyu noonu. Mhm. donc yooyu yëpp c' est des actions yi nga xamante ñoo ngi koy mëne. d' le fait de faire des communiqués ou ah. bien d' alerter. en ñu avancé rek ma faal ndax. Euh, temps bi léegi mu jeex mhm. euh, ñu wax ci drame bi am. Euh, au niveau de Melilla euh, ñii di naan am na ay sénégalais ñii di naan amul sénégalais gis nañ Horizon Sans Frontières Boubacar Seye moom campé na am na ay sénégalais ci bokk Otra euh, Africa nee na amul sénégalais gouvernement bi tamit gis nañ position yéen lan moo ci seen xalaat pourquoi yéen parfois euh, vous ne parlez le même langage ay ONG euh, yoo xam ne yéen ñëpp ci migration ngeen di yëngu. bon xam nga c'est vrai que yéen déggaguñ leen ci drapeau. pour pourtant wax nañ si de te mm-hmm. suñu njëkk wax lañu bokk. c'est mm-hmm. vrai que c'est notre antenne ah. ku mm-hmm. jiite suñu antenne Maroc. moom moo nekk présentement ñëw na Sénégal actuellement nii. Euh, defoon ay sorti mm. sorties yu nga xamante ni c'est des des journaux euh, ay rajo ak télé de la place la ko defee mm. pour expliquer parce que moom il était au cœur de de ces activités là euh, moo ñu fa woon depuis 2017 2016 2017 ba léegi moo ñu fa il a travaillé avec AMDH nekk benn organisation bu nga xamante ni bu crédible nga xamante ni jege nañ pratiquement ces migrants là. Mm mm-hmm. ba mu expliquer nu mu demee donc on a fait ces sorties là maintenant xam nga boo solee casquette défenseur des droits humains dafa am lu nga xamante ne daf la war. Mhm. dafa am benn euh, des trucs euh, purement scientifiques yu nga war a def cest dire da ngay def ay recherche yu nga xamante da nga koy def si terrain avant ngay prononcé wu. am na yoo xamante ne ñun duñ ko def duñu par loo di wax ay chiffres wala wax loo xamante ne wóoruñu. Mhm. maintenant si nos partenaire partenaires hormis AMDH boobu noonu nga xamante ne ñooñu fa. Euh, ak benn coalition de quinze organisations qui travaillent avec les migrants yu fa nekk. Mhm. donc ñoom rek la ñu mën a fiyewu si ñoom seen rapport yi ñuy jox. avant ñoom ñuy dem avant les plus de deux mille migrants di jéem a traversé maanaam di jéem a jéggi les euh, barrières yooyu noonu mais y avait on savait qu'il y avait des sénégalais si biir. Mhm. y avait pas mal de sénégalais yu nekkoon si biir maintenant pour avancer sur le nombre de décès yu fa am sur le moins de trente yu fa am comme des décès. ak les cent plus de cent trente et quelques qui ont pu passer mm. pour dem Espagne foofu noonu jusqu'à présent mënuñu prononcé wu pour wax ni que de a des Sénégalais ou pas donc bu ñu demee ba am lu ñu leer. mais vous estimez que am na Sénégalais a traversé. mais y a y a de Sénégalais yi nga xamante ñoom ñoo jéemoon traversé. Mm. y en a. Mm-hmm. mais sur les morts yéen moo leen affirmer ni am na Sénégalais non mooy lu ma wax cest à suñu kuy jiite suñu antenne bi moo ñu fi. Mm-hmm. moom moo nekkoon si zone boobu noonu. am nañ ay membres yu nekk foofu Maroc. Mm-hmm. mais ñoom nekkuñu si zone boobu noonu. Mm-hmm. sànq rek avant ñuy commencé émission maa ko doon woo. Mm-hmm. monsieur Diouf maa ngi cee au passage. Mm-hmm. donc pour woon ko pour laaj ko ban kii euh, ban euh, l' état des lieux mais mu mujj ma koon jot. xëy na nag plus tard bu ñu amee des informations. nga xam ne yu sûr yu clair dinañ ko wax. comme ni ñu wax rek ñun. <laughs> Ada doo dégg ñu ne la adaa wax na li démentir nañ ko plus tard. bëgguñu ko sax te jéemuñu ko. boole woo leen ci politique. non <laughs> d'accord ñu avancé mhm. mu mel ni sànq tout à l'heure yaa ngi may wax lu am solo mhm. euh, ay migrants sénégalais yoo xam ne jamono ji ñu ngi bloqué au niveau du Niger loolu je pense que nit ci yëgaguñu ko mhm. yaa ma ko révélé day tout à fait tout à fait bon dañ dafa am ay euh, ay migrants yi nga xamante ni euh, ñooñu ñu contacté depuis le dimanche dimanche passé bii nii la ñu contacté ba ñu contacter automatiquement on a pu euh, saisir les autorités autorités sénégalaises yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk boo ñu leen euh, saisiré muy secrétaire d'État au Sénégal de l'extérieur mm-hmm. wax la ne tout ñoom saisir nañ ambassade bi foofu noonu. Mm-hmm. migrants yi noonu nag lu ñu dund dafa grave kenn si ñoom wala ñu si bëri dañoo nekkoon Algérie. boo ñu nekkee Algérie nekk fa benn diir def nañ fa pratiquement kenn si ñoom def na fa un ak ñeneen ñu nga xam dépassé nañ ko. Mhm. boo ñu doon ñëw di leen dañ fa doon liggéey si ay chantier wu euh, chinois. Mhm. donc ñuy def raafle jël leen jàpp leen ba leen jàppee yoruñ seen papier ñu andi leen ba frontière bu nga xamante ne moom moo nekk diggante Niger ak Algérie bàyyi leen foofu. ils ont dû dañoo dox si désert bi dem ba à hauteur de seize kilomètres. am benn camp bu nga xamante ni camp wu Niger la bu fa nekkaale maintenant ñu déplacé leen si beneen camp kan boobu noonu moo ñu tudd euh, benn camp bu nga xamante ni euh, moo ñu fa muy Arline camp boobu noonu si désert bi la nekk ñu fay nekk si benn benn situation bu déplorable boo xamante ni côté sanit santé bi côté camp wu OIM la mhm. mais c'est des conditions yoo xamante ni c'est imaginable. Mhm. ñoom lu ñuy demander. ils sont restés là-bas mhm. ñoom ñoo leen prendre en charge mais malheureusement boo demee ci camp boobu wala la wonee image defe naa won naa mhm. mais image yooyu boo ko xoolee sax da nga naan ce que. Euh, mala sax war na nekk naa des conditions là pareil ñoom lu ñuy demandé ça fait deux ans ñu bloqué si camp boobu noonu lu ñu demandé mooy ñu rapatrier leen malheureusement jusqu'à présent on les rapatrie pas on nous dit si information yi am il faut ñu am cent trente personnes buñ ko amul duñ leen mën a andi mais même bu nekkoon benn sénégalais la. Mhm. boo xamante ne ñaata lañ camp bu ma lay wax nii ils sont au nombre de pratiquement quarante. amaana beneen camp beneen bu nga xamante ne am na dix cest à à trois kilomètres de ñoom fu ñu nekk. Mhm. amaana beneen camp bu nga xamante ni ils sont de trente. Mhm. qui sont là-bas. te ñu fa nekk ku may wax ni ñoom boo ñu fa bloqué ça fait maintenant deux mois ñu bloqué fa. sur des conditions yu déplorables dañoo ne mais nañ leen jëlee foofu sax yóbbu leen soit Agadez. Mm. wala ñu yóbbu leen Niamey. bu ñu leen yóbbee foofu noonu ils seront dans dans des conditions yu ñuy respecter seen dignité. Mm. mais ñoom dañoo dugg ci dëkk boobu dans l'irrégularité voilà. non non non c'est-à-dire. dañ leen jàppoon Algérie. Mm-hmm. parce que mooy mel ni ñu raaful la fii nii. Mm. yoroo papier ñu jël la yóbbu la ba ci frontière bi. bàyyi la foofu. léegi bu ñu leen bàyyee foofu ñoom fu ñuy dem pour ut wàllu mooy dañuy dem dox ba dem ba si camp ba leen gën a jege muy à seize kilomètres mm. camp boobu nag mooy camp bu nga xamante ni euh, OIM moom moo ko yor moom moo koy gérer mm. mais malheureusement condition de vie même bu ñuy dem ginnaaw kër ngeen baal ma si wax bi cest à bu ñu ko defee ak désert bi bu amee tempête wala mu am ngelaw affaire dafay ñëwaat seen si si ñoom c'est-à-dire ils sont conditions yoo xamante yu déplorables ils ont les toits. Mm-hmm. depuis deux mois. mais depuis deux ñëpp état bi euh, lu tax def ci boobu léegi ak ñi nga xam ne ñoo loolu loolu moo ñu jaaxal. on nous dit que nos la OIM ba moo war a xaar ba ñu am cent trente pour affréter leen andi leen pourquoi cent trente personnes pour andi leen mais loolu loolu ban ban loi la fan lañ ko teg. Mm-hmm. bu fekkee ni noonu la demee bu fekkee ni cent trente boobu noonu la. OIM surtout des Sénégalais ou bien wala cest à bu nekkee yeneen nationalité mm-hmm. ñoom dañu ñëw en nombre ñoom dañu leen andi euh, directement yóbbu leen Agadez. Mm-hmm. bu leen fa ñëwee nag ils sont dans de bonnes conditions quinze jours lañ fay def maximum ñu dugal leen avion yóbbu leen seen dëkk. Mm-hmm. mais ñii ils sont bloqués là-bas pendant deux ans dafay mel ni rek. ma jox ko exemple même si je dis pas que région yooyu noonu kon noonu la mel nga nekkoon si àllu Tamba bi nga buggoon ñëw fii bu nekkee fii vous êtes dans de bonnes conditions Dakar. ñoom ils disent nañu ñëw Dakar bëgguñu ñëw ñu téye ñu Tamba wala ñu téye ñu ci àll bi foo xamante ni euh, les conditions sanitaire de vie ak yooyu noonu jaaru yoon. ñu si bëri lan lañ leen def récemment jox leen xaalis ne leen dem leen ngeen jënd garab garab fan nga koy jëndee ci ci désert bi. woo leen seen parent nga leen nous sommes dans de bonnes conditions loolu autorité war na ko def. Mm. te yow sa soxna sax ñooñ ko jox cinq cent mille pour fay ko pour yow nga nekk dans de bonnes conditions l'état du Sénégal est au mais on les a alertés man personnellement je les ai alertés ils ont contacté le migrant en personne booñ ko contacté envoyé ko benn wéef benn benn somme d'argent envoyé ko somme boobu noonu ne ko euh, demal nga jëndi nga xool sa gars yi ku feebar jëndi garab nan ngay jëndee garab ci désert hmm. nan ngay jëndee garab yow doo wax ñooñu sax pour ñu ñëw andi leen Niamey wala ñu andi leen euh, Niger ñu andi leen euh, Agadez autant pour moi waxoo loolu nga ñëw ne leen jënd leen crédit ngeen woo seen waa kër woo Sénégalais ne leen nous sommes dans bon condition état bi moo ñu def euh, rôle am ambassade moo ñu def rôle am dañoo war a xam la mooy seen rôle. waaw mm. lan mooy seen cër bu nekkee ni OIM respecté wuñu ñoom ñoo war a def ba waa OIM respecté. Mm-hmm. OIM e bu fekkee ne ñoom waruñu jël ces sénégalais là jël benn oto pour ñëw affrété leen andi leen Niamey wala andi leen Niger euh, andi leen euh, agades ñoom ñu ñëw xool nan la ñuy reyee seen bopp xar seen tànk tubéy jël ay oto ñëw jëlee leen foofu noonu andi leen agades bu ñu jëlee jugee Agadez indi leen fii nii Sénégal ñooñu il demande que revenir au pays. Mm-hmm. seen soxna ñooñu fii ñu si bëri dañ lay woo ne la sama soxna instant yi ak tabaski bi xaw sax na laay def. mais il faut ñu respecter les Sénégalais avec ça ils nous vendent des des des illusions ñooñu fii ñoo ñooñu euh, kii migration et cetera boo leen micro nag ñu mel ni mooy loolu. <laughs> journée mondiale de des migrants chaque fois fan la ñuy dem des zone yoo xamante ne qui n'ont rien à avec la migration dem foofu noonu toog fa oui on a fait ceci on a fait cela dañu respecter ndaw yi dañu respecter les Sénégalais. Mmh, ñu dellu si waat Sénégal. Mmh, mmh, Euh, consulat bu France euh, démb la ñuy jot euh, plainte Otra Africa Souleymane Diallo nee na ñetti weer a ngi nii nit ñi ngi ñaxtu ku dem ci consulat bi pour ñu jël say papier rek pour nga déposer même ci plateforme bi c'est tout un problème te je pense que tey bu ñu faciliter nit yi ñu am visa immigration bi day gën a yomb waaw loolu mooy lu ñu waxoon sànq rek. Mhm. man au-delà même de de France damay wax ni que les Européens na nous respecte pas parce que suñu autorités yi ñoom ñoo wanewul cër bu nga xamante dañ ñu war a mhm. respecter. Mhm. Rwanda boo demee seen président wala seen autorité dañ leen jox cër parce que wu ñu ñee ñun lu ñu yor suñu suñu suuf rek bu nekkee ni on le met euh, dañ ko valoriser permettre tous les citoyens ñu mun a ñëw tedd si. ñee duñu leen faale mais tant que ñoo leen jox considération boobu noonu. France la moo nekk si sous-solom alors qu'ils qui son la pour ñëw suñu dëkk bi yëpp ñoom ñoo ko moom léegi ñoom ñoo moom suñu dëkk bi mun naa wax ni Afrique ñu ñàkk jom ñoom ñoo ñoom ñoo moom euh, seen seen dëkk donc foofu noonu ñu bañ leen faale France boo fa demee lan nga fay def. donc il ah, faut ñu respecté amee boo waree dem mission dem liggéey. tey ñu seen liggéey mi ngi tardé. Euh, voilà xam nga xam nga foofu foofu luñ siy mujjee rek moom mooy les autorités nañ jël seen responsabilité par mm-hmm. rapport à ça. nañu ñëw bu nekkee ni noonu la demee ñu wax ak ces autorités la mhm. bu fekkee ni dafa réciproque kon exemple bu ma woon noonu. Mhm. ñoom tamit ñu bloqué leen wala ñu ut beneen solution bu gën a radicale. Mhm. ils vont nous respecter. mais tant que tant que y a pas cette solution radicale là. chaque fois ñooñu dem di quémander de gauche à droite. jamais ñu respecté ñu. il faut rompre te jusque là joxewuñu benn information. comme quoi lii moo tax lii moo tax lii moo tax parce que jox joxuñu cër Afrique. dañuy bàyyi nit ñuy subir. ils ne nous respectent pas. boobu la yéen a alerté c'est quoi le problème man. je mm-hmm. crois Sénégal la ñuy alerté xam nga mooy lu may wax rek pas entendre wala wala bokk. xam nga xam nga xam nga xam nga non loolu yëpp yëg nañ ko exemple bu ma la jox sànq moom mooy des autorités qui ont qui ont qui nous ont écouté qui ont divulgué d'autres messages yoo xamante ne di ko wax migrants yi ñun suñu rôle lenn rek la mooy def suñu rôle de veille et d'alerte mhm. jamais au plus grand jamais nga dégg ada jot na subvention wu état wala nangu na ko mhm. jamais au plus grand jamais nga dégg ni loolu moo tax ñun suñu politique dafa très claire mhm. on s'est dit tous les membres de ADHA da ngeen am seen liggéey on sera autonome ku lay ñëw di la jox xaalis wax la dina la wax fa ngay tegee sa tànk ak fa ngay war a euh, demee mais ñun foofu moom on clair et net et radical sur ce point-là. Mm-hmm. mais malheureusement bu nekkee ni yow amoo volonté pour trouver benn solution par rapport ak benn problématique qui est là wala benn problème qui est chaque fois ni ngay def ter tergiverse. mais est-ce que barrage boobu moo tax. moo fa heure bi na barrage bi ngeen barrage diggante état bi moom waral. non non du affaire barrage on n'est pas là pour année xam nga ku teg cadre loo xamante ni yow yaa ko waroon def ngay état. Hmm. laajal ANPEJ bii nga xam mooy nekk juste à hmm. chaque fois ñu am activité. Hmm. dañuy ñëw invité leen. on leur demande aucun parfois yow sax mu ñu ñëwee nga nekk intervenant ñu ñëw jox la dara lu nga xamante ne moom ngay passé mm-hmm. Mm-hmm. on avait fait benn renforcement de capacité sur les instruments juridiques liés la migration pour xool nu nga xamante ne moom la ñuy càmbare migration mm-hmm. nu ñu koy orienté mu mu nga xamante ne c'est pas ça répond sur le plan juridique ñu laal ci trafic illicite des migrants et cetera même si on n'a pas eu le temps de d'en mu gën a am solo malheureusement donc yooyu noonu yëpp on a invité que ça soit euh, ces directions là on a invité ces collectivités locales la pour leur dire il faut ngeen imposer cette politique migratoire la muy politique de jeunesse moo doon wax seen mhm. gox nga xamante ne lu ñu doon woowee exode rural mhm. jeune bi bu jugee tey Jurbel dëkk fa juddoo fa war na fa jàngee bu jàngee ba pare war na fa trouver liggéey bu nga xam ne ça va lui permettre mhm. mu mën a ñëw insérer wu liggéey foofu noonu facilement d'accord mais malheureusement loolu noonu bu nekkee ko ter da nga ko teg andi si les journalistes ak ñeneen ak ñeneen bu nekkee ni euh, da ngay andi bras de fer doo andi loolu. donc nous suñu rôle mooy lu ñuy def rek. Mhm. def rôle d'alerte et de veille au-delà de ça de trouver des solutions ñu bàyyi la rek mot de la fin nga tàggatoo waale heure bi jot na. waaw di leen euh, remercier di am kontante ñëw fii nii c'est vrai que heure bi gaaw na trop amoon na lu mhm. bëri lu ñu bëggoon wax. xëy na peut-être beneen yoon ñu gën si wax. Mhm. voilà di leen remercier di am kontante toog ak ñu nga xamante ne ay ndaw la ñuy wax si. Euh, sujet yoo xamante ni ça préoccupe les jeunes. Mm-hmm. indi wax rek ni euh, sponsor yi ñu gën leen jege. Mm-hmm. gën leen déglu ndaxte lii bu ñu ko valoriser rek ndaw yooyu noonu dafay tax tey mm-hmm. fu ñuy liggéeyee. ñu mun leen gën a fay wala ñu mun leen gën a euh, engager d'autres jeunes. Mm -hmm. donc il faut que ces patrons là ñu ñëw xool nan la ñuy ñëwee daal accompagner ces ces ces sociétés là. accompagner leen kii leen. super donc foofu daal la ñuy yam bon espérons que lu ñu wax yëpp euh, sénégalais yi wala ñu ko déglu jël nañ si njëriñ daal. merci merci Mor merci aadama Mang euh, di fàttali yaay président de l' pour les droits humains et l' amitié di ONG ada ñu lay gërëm bu baax di la sant euh, ci invitation bi di gërëm Bachir Cissé yi nekkoon ci technique bi ak mbooleem déglukat bi ñu doon bàyyi xel.